dafay dafay de a gaaw par exemple moyenne bi ñu am moy moyenne peut-être six jours pour variant yu jëkk yi mais même en quatre jours rek ñu mënañ ko commencer gis sa yaram beneen bi ci ëpp solo nak moy limuy nekk sa yaram produire mo ëpp 1602 deux fois charge virale que variant yeneen yi c'est-à-dire que ni mu ni mu bëré sa dafa bëri ba nga xam ni loolu tax muy gaaw a wàllaate parce que non seulement day gën a gaaw a feeñ sa yaram mais day gën a bëri sa yaram et loolu tax wàllaate bi gën a gaaw et ça c'est important ñu comprendre yan mooy mécanisme yi vraiment par rapport ak lu tax muy gaaw a wàllaate noonu. yëral yëral waay yëral yëral xam nañu jotal yi yëral yëral.